ak avec le kër lourd waaw wax dëgg yàlla ak tiis ak tiis dama ñëw jàkkaarloo yenn ak tiis waaw bëgg a ñëw waxtaan ak yéen loo xam ne di diis na ma trop mais foog ma waxtaan ci ak yéen euh, neexuma mais foog ma def ko gënaluma mais foog ma def ko Euh, li tax bis bu mu waxee lan laa war a def ba pare dinaa wax li tax ma koy def ma xalaat ci bu baax a baax nag xëy na nag euh, mu bett ñu bari dina naqari ñu bari mais bis dina ñëw ñu bari dinañu comprendre euh, pour wax ko sax dafay diis pour génnee ko ci gémmiñ pour génnee ko ci làmmiñ dafay diis trop tellement que diis na ma mais ma jàkkaarlook yéen tey mbokki patriotes yi mbokki Sénégal seen xarit seen doomu ndey seen frère seen doom seen jarbaat tey moo ñëw bëgg séq ak yéen ay kàddu euh, dofu kër gi voilà lu xew euh, dinaa ko wax léegi léegi léegi incha allah rabbi man Abdoulaye Pitagor Faye tey fi ma toog di waxtaan ak yéen léegi nii yéen yéenay njëkk nekk ñoo xam ne par exemple dinañ dégg déclaration bi yéen ñi nekk ci live bi ma bëgg ngeen jël ko ak philosophie ma bëgg ngeen dégloo ma ak xel bu baax a baax a baax a baax euh, man Abdoulaye Pitagore fay bis ni que tey damay démissionné ci parti Pastef bis ni que tey damay démissionné ci parti Pastef waaw bien sûr vous avez très bien entendu démissionné de Pastef